donc ñun li ñu tax a taxaw fii rek tey mooy maanaam di yuuxu di woote wallu ndax dañuy dund lu metti mat na ñaar fukki at ci ren ji ñu ngi dund lu metti ndax mbirum ndox mi ndax dëkk bi dañ fee dëkk amul canalisation amul amul amul tali te loolu daf ñoo indil ay gàllankoor yu baree baree bari bu nawet ñëwee rawatina nag nawetu ren bi nawetu ren bii dund nañ fi loo xam ne bu déwén bu ñu bu ñu bu ñu ko dundaatee piir la ñuy dund parce que oto dematul oto dikkatul Kounoune 2 tëju na daan nañ fa jaar tëju na rab yoonu Sédima bi tëju na mënatuñoo génn yoonu Sadja 5 tëju na mënatuñoo génn yoonu awaja bi fi des mi ngi ni bu ñu génnul ak charrette duñu mën a ñëw malade yaa ngi ci kër yi tëdd dematuñu marché fajootuñu defatuñu dara kenn liggéeyeetu donc dëkk bi tëju na yëpp bakkan sax rot na fi benn waay ju jàmbaar ñu koy wax duudundooy dugg na fii këram fees dell mu ñëw branché rek bëgg a manque ndox mi ci këram rek courant ba maas ko mu dee fa la yem njabootam a ngi ne toog ak seen jaaxle te ba tey njabootam ñu ngi ci biir ndox mi kon nag loolu moo tax ñun tamit ñuy yuuxu di woo monsieur le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ndax lii am nañ yaakaar ne moom rek moo ci mën dara ndax xëy na autorité yi fi nekk mën naa am at yi jiitu at ci biir ñu nekk nii jéem nañ lu ñu mën mais li ñu mën amaana attanatul maanaam dayo bi yëf yi toll Nous avons une pétition au niveau de la cité qui ne cesse d'évoluer à chaque fois le nombre est en train d'augmenter à l'instant où je parle les gens sont en train de signer cette pétition pour rencontrer le président de la République Une affaire encore que souligner la cité des enseignants les pays qui nous nit servir pays en tant que en tant que même des volontaires des gens qui ont nous nous mais pour nous Nous, cité des enseignants dañuy ñenn ñi leneen li nga xamante ni jàpp nañu mooñ ci mënoon génn mooy les transports publics il n'y a plus aucun véhicule qui entre à la cité des enseignants nous avions été desservis par une ligne am nañu ligne bu ñuy wax ligne 72 j'aimerais vraiment ma wax ci parce que brèche la ligne boo xamante ni nii askan Sénégal lañ ñoo ko yor sénégalais aussi foofu dañu ñàkk yërmande askanu cité des enseignants ay maire ay pa ay jeunes dëkk fi di servir seen réew bus benn bus bu ñu amoon bu daan dugg cité bi bus boobu ñëwatul ci cité bi tey da ngay jël bus bi ñu ne le 45 72 autant pour moi cité enseignant là, li C'était cité enseignant bi la mu arrêté fële ca Kounoune suñuy yaay suñuy rakk ak ñëpp xuus maire di yëg ci ay sareet sareet di leen daaneel ci ay ndox yow mënatoo génn cité enseignant ñu ñuy laaj ay 1500 ak 700 francs pour transport dans ce pays dans cette ville là qu'on appelle cité des enseignants autour à péage baa ngi ci ginnaaw auto yi fee daw dañuy dégg seen bruit benen baa fi ni auto yi dañu romb ñun mënuñoo génn dem ci tali bi mënuñoo dem liggéey ji te ñu nekk ci réew moo xam ne ñun nee nañu ñun ay sénégalais lañu te dem dikk nekk fi di servir ay Sénégal cité enseignant dem dikk musul traversé fii ñun am ñu droit am tam dikk boo xamante ni service public la sénégalais yëpp ko bokk suñu pass yi wàññeeku ndax ñun sénégal la ñuy liggéeyal enseignant yaa ngi fi ay technicien ay autocrate ay lépp ngi fii ci seen cité enseignant bii nii te moo ko cité enseignant peut être li ma dëkk moo tax mais tous les villages environnants ay intellectuels ay nit sénégal ñoo fi nekk ñooñu di dund dans des situations pareilles alors nag jot na ñu yëkkati suñu loxo wax nag ni njiitu réew mi ñun dimba laaju ñu ko mu dimbale ñu ñu ndox yi suñu kër mais ñu ndox mi ci dëkk bi nit ñi mën a xëy def seen i